mbokk jullit yi gannaaw bu nu sante yàlla subhaanahu wa taala ci ngëneelam yooyu xéewalam yu bari yu mu nu defal julli ci sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne maa ursila illa rahmatan lil alamin di jaajëfal seexuna cheikh ahmadul xadim sunu xutba tey bi nag ñu ngi ko bëgg jëme ci kitaabullahi alquran mësuñu ko génn waaye tey dana ko koy jagle ndax téereb yàlla boobu téere la boo xam ne yàlla moo na ko xamalal boppam nu zalika al kitaabu laa rayba fii téere baa ngoogu mooy téere dëgg dëgg dëgg boo xam ne benn sikki ñëwu ci amul benn duut bu nit wala jinne wala malaayika wala borom xam-xam wala ku yàlla bind ma ne duuta ci alxuraan te mu wér amut te li li yàlla bind doomu aadama ci gën a moo ci gën a néew moo ci gën a néew xam-xam waaye muy doomu aadama muy leneen lu mu doon amut lu yàlla bind lu mën a andi benn duut bu toll na wirgil ci alxuraan te mu wér amut laa rayba fii innahu la kitaabun azizun laa yaatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanziilun min hakiimin hamiid sadaqallaahu al-aziim kon téere baa ngoogu yàlla moo nu ko xamalal boppam hadis ba wax nu nit ki su faatoo ay aw yiwam ay jëfam yëpp day dagg ba mu des ñett ñett rekk lay dese yoo xam ne mën na caa jëlee ci wuyu ñett yooyu nag bokk yi ku mënte boole ñett yëpp yàlla na nu yàlla defal li ngëneel boole ñett yëpp ku mënte boole ñett yëpp fexeel ba am ci ñaar ku ci mënta am ñaar fexeel ba am ci benn waaye ñàkk ci am benn faatu saw yu yëpp dagg wal iyaasu billaahi loolu bokk yi dara jël ñett yi mooy lan ba ca njëkk mooy sadaqa jaariya sarax boo xam ni aw yoom du dog dalay fekk fa ngay ne loola mooy nga fekk loo xam ne doomu aadama yi dañ koy jëriñoo jullit yi dañ koy jëriñoo nga fexe ba bàyyi ko ci kaw suuf moo xam lu mu doon moo xam lu mu néew néew doonte da ngaa dëkk ku néew doole amul doole nga yoon noddil ko robinet ci biir këram mu di ko jëriñoo moo ko njabootam loolu sadaqa jaariya la wala nga gasub teen wala nga bënn forage wala nga jëmbat garab loo xam ne ki boo fi jógee di jëriñu ca ker ga ak meññet wala nga am toolee tabax jàkka fekk foo xamante ne bi julli bokk julli yëpp ne bëgg nañuy jàkka te mënuñu ko am nga tabaxal leen fa jàkka ñu di ci julli di di ci di sa jaamu di sa jaamu yàlla wala nga tabax daaray alquran joo xam ni da nga ko fay bàyyi mbir ci daañu jàng alquran tey loolu bokk yi ku xamoon li ci nekk ci wuyu wallahi dana la jaral jaay si kër gi nga dëkk tabaxi ko daaray alquran bàyyi ko fi barab boo xam ne téeméeri nit dañu fay yendu di fa fanaan di yendoo jàlla jàng alquran di ko yendoo di ko fanaane jàng di yendoo jaamu yàlla di ko fanaane te mu téeméeri yooyu yëpp ke leen di jàng rek ñu ñëpp araf wu ca wax saw yiw fekk sa wàll fekk la fa nga tëdd loolu ba loolu mbokk yi bari na de tey tey jar na lu ne kon ku mën a am daaray alxuraan na nga fexe ba bàyyi lu waaye di bàyyi ci àdduna ñu jariñoo bàyyi fi daaray alxuraan li ci nekk ci yu kenn xamut nu mu toll mu ne loolu mooy sadax jaar yi ak yu mel ne yi nga fexe ba bàyyi koo fi dara bàyyi dara lu doomu aadama yi jëriñoo ngir yàlla ñu di ko jëriñoo fii ñu ngi koy jëriñoo sunu borom yow sab yool di la fekk fa nga ne bu demoon ba loola yàqu sax nga xam ne dafa yàqu bu dee garab la daa de wala wala wala bu dee bu de bu dee foofu teen la daa dëy parit yool ba day wéy ba ba ngay ba ngay jub yomal xiyaam yool ba di la fekk fa nga ne kooku mooy sadax jaariya benn ñaareel ba mooy ilmun yuntafau bi nga bàyyi fa xam-xam bu ñuy jëriñoo mel na jëmm ji nga xam ne moo fi bàyyi ko bu yàggut bu yàggut muy sëñ sëñ Abdourahman yàlla na yàlla yokki yiwam yokki leeram yokki ngërëmum bàyyi bàyyi na fi ci xam-xam loo xamante ni ba dinay tukki doomi wolof di ci jëriñu ilmun yuntafa'u bihi ngoog foofu mu fu mu nekk waxtu wu nekk a wàll yow di ko iwam di ko fa fekk ñetteel ba bàyyi fi doom ju baax muy jaamu yàlla di jàng alxuraan di la ñaanal doom ju baax joo xam ne danga ko jàngal alxuraan bàyyi ko fi mu di ko jàngalee di jaamu yàlla fa nga nekk waxtu wu nekk ak yoon dala fa fekk lenn ci njëriñu loolu dinañ ci dina ñëw ci mu ci wax ji ci kanam tuuti hadis ba dafa wax ne alquran saa su borom faatoo dugg ci bàmmeel tëdd fa ba ñu mu di di ko fa taral di ko fa taral ba ñu wal buftu bi moo koy njëkk ci bunt bàmmeel ba taxaw bu ne tëll ak ku fundooñam ak ku xundooñam ak ku cuxureem bu xelam ne bu bu bëtam ne gegg ci moom xelam day daa di dal mu firi xamagul kan la waaye leeraay bi ak neexaayu gis bi rek dal na xelam mu ne ko ndax xam nga ma mu ne ko déedéet ma dafa mbëri ah xamoo ma mu ne ko déedéet xamoo ma mu ne ko déedéet mu ne mu ne ko man maay alquran sa àndandoo ba daal dina ko yow nag lépp lu nit di jëriñoo tey lépp lu nit di jëriñoo lépp lu nit di tonewoo sa wàll ngi ci tey kenn ku nekk la muy tonewoo la mu la la la mu doon la mu doon commercé aw yiwam moo koy moom lay jëriñoo tey yow nag lépp nga doon commerce lépp lu aw yiw ne sa wàll nga ca tey daal koy yëkkati teg fi barab defar ko ba mu sell sorel ko yu rafet teg ko ca kaw daal di yëkkati al mulk teg ci loxol ndey jooram mooy nguur googee nguur moo sax nguurug àdduna toskare la nguurug àdduna demukaayu sawara la nguurug àdduna du dara googee nguur a sax yëkkati ko teg ci loxol ndey jooram yëkkati xuld teg ci loxol càmmooñam xuld mooy béel doo fi jóg fab ndëpp na taajul waqaar teg ci kaw bopp fab taajul waqaar teg ci kaw bopp taajul waqaar boo ko xamut taaj mooy li ñuy wax ndëpp mooy mbaxanam buur buur yi àdduna yi daa nga gis buur boo xam ne la muy teg te boppam bu ñu ko doon xayma ci àdduna da yow ay millions la wala ay milliards ndax doj wu foor ci kaw àdduna def nañ ko ci ci diggante or jamaa lu ak ak marjaan lu lu lépp lépp lépp doj wu foor dañ ko cee def ba mu ni ci mbir ne sëñ mu teg ko ci kaw boppam nga xam ne boo ko doon xayma muy alal ju bari loolu mooy ndëpp ndëpp la ñuy tegal jànkata jànkata alxuraan ba nag ndëpp taajul waxaar lay tudd taajul waxaar nee ñu kenn mënu koo xayma lu xel lu bët di teg tegu ci lu rafet loolu làmmiñ di mos ci lu neex li nopp di dëgg ci lu neex lu xel di imaginer ci lu rafet mën ne su ko xayma ci tajul waxaar suñu borom rekk moo xam rafetaay ba moo xam fooraay ba moo xam wëleer wa ñu teg ko ci kaw boppam te duñ ca dañuy fab ñaari waajuram teg ci kanamam solal leen ay mbubb mbubbi leer yoo xam ni dañoo wax ni laa yuqaasu lahuma ahlu dunia laa yuqaasu lahuma ahlu dunia adduna ak li ci biiram ak waa adduna bu ñu leen xayma woon ba muy wëleer mënta jënd benn ci mbubb yooyu ñu ñaari mbubb yi ñuy sogal solal ay waajuram ci kanam ñu laa dina ah nun yii mbubb lu nu ñun leen seen doom ji doon jàng alxuraan ak di ko jàngale moo leen ko may mbokk yi loolu jar na lu ne jar na lu ne nan fab doom yi dugal leen ci daara muy ñu jàng alxuraan bu ko defee ñu daal dina ko yow nag sa dëkkuwaay ma nga ca kaw alxuraan mooy sa iskale iqra wasaad iqra wasaad del jàng di yéeg muy jàng di yéeg di jàng di yéeg di jàng di yéeg ba fa ba fa soob suñu borom di jàng di yéeg ba jeexal ñu ne ko sa dëkkuwaay ngoom mbokk yi loola mooy nguur te alxuraan rek koy may nanu daba nanu nu tax li nu raw ci alxuraan nanu ko dabu ci suñu doom yi dëkkandoo mu doom ju wattu alxuraan te amoo ko bul bul ko séenoo dab yow mal xiyam raw na la te doo ko dab li nu li raw ci alxuraan nan ko dabu ci suñu doom yi am doom ji waxtu alquran mu tëdd ci bàmmeel ba tëdd ci bàmmeel jugi fekk ko yowmal xiyaam yéen daje fa wallahi kenn xamul nu mu toll ci wuyu lii tuuti la kon li nu dabu li nu raw ci alquran ci suñ jëmm nan ko dabul suñuy doom kenn ku nekk fexeel ba am doom ju waxtu alquran moo xam góor la moo xam jigéen la wallahi lépp lu la naqari ci sa bopp yowmal xiyaam dana faju te kookee moo koy fay sunu borom addi addis ba daf ni inna lillahi fi ahli inna lillahi ahlina fi nnaasi yàlla am na njaboot ci nit ñi nit ñëpp alali waaye nee na am na ci njabootu boppam yàlla am na njaboot ci nit ñi ñu ne ko ñooñu ñu mu mu ni ahlul qur'ani ahlullahi wa xaasatu waaye alquran ñooy njabootu yàlla gi ñooy ñooy ay particulier mooy nit ñi ko gën a jege daal di wax ni ñooñu ñooy ñi gën ñi gën ci nit ñi ñi gën ci nit ñi mooy ñi doon jàngal alxuraan te di ko jàngal ñooñu ñoo di njabootu yàlla mbokk yi nañu jàngi alxuraan nañu wuti dara yi alxuraan tasaare ko suuf nan foofu suñu doom bi dugal leen ci alxuraan ñu jàngi alxuraan daanu jural loo xam ni fii dañ fee romb rek di dem waaye bis bu demee fa nga xam ne fa la ñuy dëkk daan fa fekk ci njëriñu alxuraan loo xam ne duñ ko rëcc mukk loolu mooy su ko firndeel Cheikh na Cheikh Ahmadul Khadim mas naa am lu mu joxe ne nañ ma ko joxal sama njaboot bi kam ko jox daal di koy yóbbu biir kër ga jox ko mu ñëwee ko foo ko yóbbu ne ko xanaa ca biir kër ga mu ne ko waxuma la foofa de ñeema nekkal te alxuraan di ko jàng ka sama njaboot loolu la ko sëñ nag bokk ci njabootu sëñ Tuubaa bokk ci njabootu yàlla gi jar na jàng alxuraan jàngale ko soo ko mënee soo ko mënul ba am doom du ko man soo ko mënul fexeel ba am barab bu ñuy jàngale alxuraan donte néeg la nga teg ko fa ku koy jàngale alxuraan ñu di fa jàngale alxuraan nga di ko dundal wala nga di ko fay wala nga di ko dimbale jàngale kataba alxuraan moom soxlawul ku ko fay buñ ko fayee baax na ndax alxuraan sunu borom nee na yonent bi salaa sallam nee na inna afdala ma taaxuduuna minhu ajran la kitabullah lépp lu ngeen di liggéey bi dina di fay alxuraan la ci gën kon jàngale alxuraan ñu di la fay bind ko ñu di la fay moo gën ci lépp lu ñuy liggéey ñu di ko fay kon jàngalekat bi boo ko fayee mu jël waaye ku ko fay tut mu jàngale ndax ñoom yàlla rek leen yàlla rek yàlla rek leen tax di def bu ñu ñëwee ñoom jàngalekat yi ñoom ñooy nguur yi ñoom ñooy buur yi ñoom ñooy buur yi àdduna ndax bu àdduna taxawee ñooma alxuraan saa suñ fi toll àdduna saa suñ bi noppee jàngale alxuraan jàng alxuraan jàngale ko sunu borom tax ñu dëndal kon ñu tax tey sunu borom tax ñu du dënd dënd mooy ñuy jàngale alxuraan loolu war nañ koo xam ñun xam ne suñuy garanté mooy jàngalekat alxuraan yi ci kaw suuf nu fonk leen tëdd leen teral tëdd leen dimbale te yàlla rek tax te xam ne ñooy suñuy garanti yéen nag yéen yàlla leen fay yàllaa leen di fayal seen bopp ndax yàlla nee na yéen yéen a ñi ci nit ñi tey lam leen di xamal ëllëg kenn du ko xam ku dul yàlla moom nga xam ne moo leen bind kon nag jazakumullahu anna xayran na leen yàlla fay yéen seen daara yi jàngale alquran waaye yal na yàlla dimbale yal na yàlla fay kii dimbale alquran yal na yàlla fay kii jàngal al kii yal na yàlla fay ki wut daaree alquran teg ci jàngalekat mu di ko jàngale yal na ñu yàlla dimbale ci kàttanam ak baaxam